wala jamonoy SDE la sax bu ngeen fàttali euh, ko grève nañ ci sax jamonoy SDE ça ne date pas d'aujourd'hui loolu ak syndicat moo ànd moo tax li ma leen wax dañuy wut ay prétexte yoo xam prétexte yoo xam ne taxawul syndicat adressé wu ak presse di dénoncer condition liggéeykat yi ak direction général li mu fa nekkee loolu ça a toujours été comme ça loolu jarul sax ngay menacer wala ngay bañ a menacer si lañ dëkk pour vous dire juste dañuy wut benn prétexte collé la ko ne la da ñoo menacer ne da nga ñuy yóbbu si presse bi demande d'explication kaay conseil de discipline xam ngeen ne loolu. Mhm. du argument bu dëgër. ay reetaan sax la war a def. Mhm. presse boo fa duggee nga wax kenn koo xam ne lu waxuwul la am nga liberté porter plainte pour diffamation. Mhm. loi bi maye na ko te boobu ba léegi ñu ngi nii suñu jàmm diffamé wuñ kenn li ñuy wax mooy liggéeykat yi seen condition foofu la ñu yem. loolu nag ku bëgg a jóg ne danga ñu koy tere dangay sonal sa bopp. waaw suñuy plan d'action déjà comme li ma wax suñu yenn dossier mu ngi au tribunal on a trois dossiers au tribunal du travail c'est en cours mmh. comme tribunal a un temps d'arbitrage beneen bi à la DGTS direction générale du travail e de la sécurité social mmh. convoqué nañ ñu benn yoon ñu ngi xaar une deuxième convocation on a des dossiers en suspense là-bas pour topp ko juridiquement foofu mm-hmm. yeneen yi c'est à l'inspection régional du travail de Dakar ñu ngi ci ça va suivre son cours. Mhm. yi si des nag au moment opportun secrétariat bu syndicat bi dina réunir jël ay décisions yu claires par rapport ak plan d'action bi ñu war a tëral pour avancer chaque dossier puisque dossier yi dafa bari. Mhm. loolu nag galgal yu bari yi yëpp yóbbee na si direction général seen o mu recruter débaucher sax laay wax un inspecteur régional du travail de Dakar. muy ki nga wax ne moom nga waxal moo nekkoon régional bu Dakar muy inspection bi gën a prestigieux ci inspection régionale nga coiffé toute l' inspection régionale de Dakar mooy seen directeur mooy ressources humaines Amar Diop ñu débauché ko indi ko seen en tant que RH lu tax loolu bëgg xokkotal liggéeykat yi mu nekk fa di jouer rôle gendarme yoru gendarme xam nga entreprise multinationale mm. seen nga xam ne entreprise bu gën a mag ci Sénégal la mm. si tu veux bien fair da ngay recruter un spécialiste du RH mu gérer la RH bi dans les règles mais doo dem seeti inspecteur du travail boo xam ne RH du spécialité nga ñëw teg ko di ko def loo rôle RH xam nga ne kooku du la fa defal RH rôle gendarme lay taxaw xool nu muy persécuter syndicat yi xool nu muy xokkotale ñi demande d'explication yu bari yëpp moom moo koy bind signé ko ñëw toog ci conseil discipline bi di bander les di jaay gendarme loolu ñu ngi koy ñaawlu parce que de plus en plus on voit des inspecteurs du travail dem dans le privé. et en général fu ñu dem dans le privé liggéeykat yi foofu du ñu am jàmm. loolu di hémorragie bu ñu war a freiner bu ñu ko ragaloon doo ñu gis ci plateau bi. bu ñu ko ragaloon xam naa xam naa koris koris xam naa avenue Bourguiba bi sax doo ma fi gis waxuma sax ci plateau bi. donc ñun suñu rôle syndicat dañ koy jouer et ça fait des années ñu ngi koy jouer dinañ continuer di ko jouer seen xoqatal conseil discipline jaar na fi affectation jaar na fi convocation gendarmerie jaar na fi hmm. tribunal correctionnel dem nañ fa ak ñoom hmm. euh, affectation nangu suñuy avantage ba si oto bi mujj moo si mujj ne dañ koy nangu mënuñu koo nangu teg ci tamit demande de licenciement yooyu yëpp jaar na fi ñu ngi fii on est là debout on continue de défendre le personnel. dinaa dellu si léegi si si si demande kii bi euh, demande de licenciement bi mm. mais dama bëgg a demander juriste bi est-ce que légalement un inspecteur du travail euh, en fait à l'inspection du travail kooku est-ce que légalement mën na dem di diriger un un en fait une entreprise privée wala benn entreprise boo xam dafa nekk fii en tant que comme un RH. dara taru ko sinon du ko def. le problème kay mooy mënu nekk si ñaari côté yëpp mënu nekk en même temps inspecteur du du travail et nekk RH foofu noonu sinon conflit d'intérêt day am. mais su bàyyee liggéeyam que rien rien ne lui empêche d'être dans le privé. Mm-hmm. peut-être nag amul adéquation poste à profil des postes yi. Mm-hmm. loolu ça peut poser un problème mais légalement rien ne lui empêche de faire ça. parce que dañuy jël disponibilité en tant que fonctionnaire un an deux ans jël disponibilité dem dans le privé wut fa xaalis. Euh, pare ñëwaat duggaat comme ni ko fonctionnaire yi defee nga dem dans le privé ñëwaat fonction publique par des disponibilités mais yaa comme li ko camarade bi waxee mooy amul adéquation parce que un RH métier la da koy jàng cinq ans pratiquer ko lu bari balaa ñu lay jox RH waxuma la entreprise bu mag bi Sen'Eau toll ni Sen'Eau am plus de 1200 agents CDD CDI bokkul ak ay centaines d'intérimaires mm-hmm. loolu il faut un vrai RH mu gérer ko mm-hmm. doo inspecteur du travail la bu ñi ñi amee litige si moom ngay dem ñu lay arbitrer ndax yàgg na arbitrer litige seen o moom ba mu nekkee régional bu Dakar xam na dossier o bu ñu amaan problème fa lañ doon dem ñu àtte ñu fi nga amee problème di fa dem ñu lay àtte ñu jël kooku indi ko mu nekk RS xam nga ne foofu ku bëgg jàmm du ko def léegi par rapport ak euh, demande de bi certes ñaanalu ma la ko nag mm. mais c'est c'est c'est une éventualité qui est là si un jour ñoom ñu daal di jël inspection du travail daal di confirmer sa sa licenciement tey yan porte moo nekk sa kam yan euh, euh, kii nga possibilité nga am pour nga braar ko est-ce que da ngay am nga droit def ay appel genre affaire yooyu noonu pour un nga daal di rétablir sa situation non loolu moom c'est des scénarios yoo xam ne xam nañ ne duñ fa àgg moo tax on ne se projette même pas dans ça parce que le fait nga toog di ko projeté wu sax c'est défaitiste. loolu duñ fa àgg aussi de comprendre. exactement ce qui se passe licencier un délégué du noonu. Mhm. bu direction bi day yeewu rek ne bëggatuma gis syndicat sama entreprise xaaral ma sàkkal leen pexe door leen demande d'explication demande de licenciement laaj leen waa CBAO yi ko fi doon jëm fu ñu mujjee. kase nañ ko pour des sim pour de délégués tout simplement waxuma la ak le secrétaire général du syndicat. loolu bu ñun suñu liggéey dara entravé wu ko. nee naa leen inspection du travail moo am pouvoir de décision. loolu du direction bu seen au mooy yeewu rek. Mm-hmm. mu neex ko mu ne xaaral ma licencier loolu mën na ko def si koo xam ne du délégué. Mm-hmm. nga xam ne ñu ko defee koo xam ne du délégué ça acte immédiatement day dugg en vigueur mhm. à charge à la personne licenciée mu dem tribinal di porter plainte wala inspection mhm. mais bii c'est l'inspection qui décide ndax da nga war a licencier ndax jaar na yoon wala jaarul yoon moo tax c'est pas une mince affaire l'histoire de la CBAO est récente temps yi ça fait l'actualité gis ngeen nu mu demee mhm. loolu moom que les gens se rassurent notre combat nous allons la continuer et nous allons la gagner incha allah gis naa fi RH boo xam ne dañ koy dañ leen fi mu doon liggéey def dañ koy yóbbu fay dañ leen yóbbu inspection du travail léegi moom dafa dem inspection du travail xaritoog ñëpp <laughs> xaritoog ñëpp bon man sama sama question toujours préoccupation askan wi la gis nañu souvent aussi surtout les week wala ay euh, avant week-end bi mën na la si tontu. mais parce que nee la problème technique la. oui mais il est au cœur il est au cœur des des des des fa lay liggéey peut-être am na si ay information yoo xam ne ñun amuñu ko. Mm. dañuy gis souvent ay week ngeen di def ay communiqué woy telle zone du am ndox parce que dañuy def ay liggéey fii ak fii ak fii jusqu'à présent am na yenn quartier yu Dakar du ñu am ndox lan moo waa loolu. ma ci mën a wax ci généralité yi laay des parce que y a des aspects yoo xam ne il faut un vrai technicien pour wax la localité bu ne ñàkk ndoxam bu dee am na manque d'eau lan moo ko waral parce que c'est complexe parce que Dakar c'est pas une petite ville et ndoxu Dakar c'est très complexe ndax fi muy jógee bari na réseau yi c'est diversifié ndax zone bu nekk ak problème am ngay gis ñi am ndox du ñu am guddi ñi am guddi ñu am bëccëg ñële am lu doy ñi duñ mës a am lu doy parfois camion ndox ñëw pour secourir leen wala parfois ñu nekk en travaux ñu couper réseau bi ñu xañ ñëpp ndox la temps que ñu régler des problème technique def ay réparation mm-hmm. taalaat ko ñu ñu ñuy jotaat loolu yëpp c'est très complexe à expliquer mm-hmm. maintenant ndox nañu xam doyul parce que Dakar day màgg-màgg bu gaaw tabaxoon nañ fi KMS 3 bu yàggul mais malgré tout ni Dakar di màggee moo gën a gaaw ni investissement yi pour jox ndox bu doy mm-hmm. mën a suivre loolu nag day laaj nguur gi gën a yokkaat investissement yi pour ndox bi gën a mën a doy moo taxoon ba fi Macky doon jóge bu ngeen seetloo amoon na ay saoudien ak waa PAO yu ñu signé woon pour ñu defar usine ndox côté Grande Côte bi pour dessaler l'eau de mer mhm. pour dolli ko ci réseau bi mu ñëw loolu yëpp day wane ne gouvernement bi ci boppam xam na ne ndox mi doyul ñu ngi wut ay pexe pour yokk usines yu mën a traiter ndox volume d'eau yi yokk pour alimenter Dakar ak li wër Dakar